àtt nañu leen ba tëj leen lu toll si ñaar fukki ati kaso loolee baax na si ñoom yéen a kaay gi di enquête nee na mi di président Macky Sall nee na ren ji ñeenti fan ci weeru avril nee ma 4 avril nee ma fête de l'indépendance yéen kaay gi nee na njiitu mi nee na défilé du am yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy na wax ci conseil ministre bi nga xam ne ni ki démb nañu koy amal njiitu réew mi wax na ci lu jëm ci wàllum tasum xibaar waaye nag wax nañu daal di càmbaraat jeexal li nga xam ne mooy lëmbët gi nga xam ne doon nañu ko xool loi jëm ci wàllum publicité ci presse bi njiitu mi di Macky Sall wax na ci lu jëm ci wàllum wàllum xëyum ndaw ñi ak géej gi nan la ñu ko mën a sécuriser yéen kaay gi du source a xëy dañu xibaar naan ñu Issa Sall mi nga xam ne député la war a bokk ci PUR dafa violé li nga xam ne mooy loi bi waaye nag ànd ci ak ki nga xam ne mooy Macky Sall mi ko def ministre conseil ndax Macky Sall amul sañ-sañ benn yoon di gis Issa Sall mu nekk ab député mu koy def ministre conseil te nag boobee kenn yëgu ko te nag ñaari poste yooyu kenn waru leen a cumuler Issa Sall da ko cumuler ba doy nangu li nga xam ne mooy mandat député am yéen na léegi sax gars yi waxutuñ mburoog yokku nañ sa mburoog soow coow pur yéene kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa njiitul Pastef di Ousmane Sonko moom nag tontu na ci kàddu yi nga xam ne fan yi ma jambal jaañ daana ko yëkkati wax ci lu jëm ci wàllum joolaa yi ak wàllum xeet Ousmane Sonko nee na am na ay kàddu yoo xamante ni waxi dof la te nag jamono ci am na loo xamante ni mënatul jàll Sénégal dafa am nag ay nit ñoo xam ne ay nit ñu soxor lañ ay nit ñu bon ay nit ñoo xam ne dem nañ ba xam ne ñàkk a promoteur bi di Serigne Cheikh Thioro Mbacké dañu ko proposé lu toll ci quatre-vingts millions jox ko 4 x ak passeport diplomatique ngir mu bàyyi parti bi di Pastef mu daal di lànk ba tëdd wa yéenekaay gi di 24 heures nee na Pastef bi ñuy janoo ak taskatu xabaar yi def nañu ay révélation yéenekaay gi di enquête xëy dañu xibaar naan fan yi ñu génn am na lu toll ci fukk ak ñett ci ay xale yoo xamante ni jàppoon nañ leen ci diwaanu Diawbe yéenekaay gi nee na ci protocole bu Ousmane Sonko di Jibi Gueye Ndiaye ni ki démb la ñu ko convoqué woon fi nga xam ne maanaam mooy dikk moom nag wuy jiwul benn yoon ndax nee na kenn du ko convoqué ci li nga xam ne mooy ab téléphone bu ñu koy convoqué dañuy bind daal di koy yóbbu la yéene kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu société West Africa Énergie cent pour cent sénégalaise yéene kaay gi nee na ni ki démb teg nañ xeer wu njëkk wi ci lu jëm ci construction ab centre de gaz boo xamante ni toll na ci trois cent mégawatts yéene kaay gi di Dakar Times xëy duñu xibaar naan ñu Bougane Gueye Dany àndul benn yoon ci ñu amnistie ki mooy Karim Wade ak Khalifa Sall yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy génn ñu réew mi di ñu xibaar naan ñu États-Unis bi nga xamante ni génn nañu ko si daan nañuy wax ne Sénégal lépp loo xam ne jëm na ci àq ak yelleefu doomu aadama dañu koo daal di football yéen a kaay gi di laas xibaar naan ñu Fatou Thione ba léegi ni dafa jàpp Youssou Ndour yéen a kaay gi ne na mbaa nag Youssou Ndour sax du fa jógee nag li nga xam ne mooy musique yéen a kaay gi di mi nga xam ne mooy entraîneur équipe nationale bu Sénégal nga xam ne moom la ñu génn gars yi yekk nañu ko musiba ak mbelengaan ndax